أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية نبي نعم درس لو بام سولو بو من منس قيد استاذ احمد مكو وي من لا تحمدن قبل التجارب ولا قبل التجارب صاحبا فترى أخيرا عكس ما قد تحسبه قد كان ذني عند فعل محصنا فبدا من العرقوب وعدا أكتب علمته ربيته رقيته فجزاء ذلك كله maa yuux dibu wax la boo xam ne wax bu am temps de wax bu am jamono la sëñ moo ko wéy de mu ne su ma njortu mu ne laa tax mi dan bul gërëm mukk benn kàndoo xabla tajaarub bi lu danga koo def tajaarub mooy natt ki ngay àndal mooy kan nit kii doo ànd ak moom tey rek ne mooy waaja dem noonu de bari na koy wax mooy mooy mooy waaja wallaay fekk duur ko te boo ànd ak moom kàndoo gi yàgg da nga xam ne duur ko te mosu koy do yaa ko yaa ko rek ndax foo gisee ànd ak nit ba mu yàgg nga téye sama nga nga sa gémmiñ yaa ko jàppoon kàndoo mais moom nekkutoon kàndoo bu baax yàlla wax na ci alquran ne bés dina ñëw yomal qiyaam da gis ku téye gémmiñam ne man elentoon duma xam diw elentoon du ko xam du ma ànd ak moom foo gisee ne ko ànd ak ñoom yàgg mu wit di kandoo ga tam àndoon moo baaxutoon moom moo ko jàppoon góor fekk du góor hmm? hmm? hmm? bul gërëm mukk benn kandoo euh, taalama kama lam tufu euh, benn woykat doo ko woy hmm? la bëggoon a woyal kama lam tufu bàyyi mu dem oustaz nee na bul bul bul gërëm benn kàndoo lu dul ki ngay àndaat danga koy xam bu baax yaa ngi dégg benn woykat mu ne la wa bàyyi moo ko wax wal maru fi diini qarini hamim in saalihun fa saalih wa in bahim beneen woykat mu ne dégg واختر قرينك وسط فيه تفاقرا ولا وسط فيه واختر قرينك وسط فيه فإن القرين فإن القرين إلى مقارن يقتدي ولا ينسب ñaar yëpp ñëw na ci riwaaya na nga tànn sa xarit nga ségu ko dëgg dëgg segg xool ko bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki ku may ànd rek dañ ko askane waaye bul gërëm rek ànd nit tey benn waxtu rek na ki may waaja xabal tajaru bi lu dang ngoy def tajaru moy nat ko ko bu nek jarna sa nga ñew nako boy dama ray nit ba xam ban réaction la am jarna sa benen bëss bés nga ne man tay dama ndialo ba xam ban réaction la am jarna sa nga ñew nako tay dama sag sama yaay ba xam ban réaction la am suma baye neena na ma boo ni su bu ngon jot te waxu la jubal du waja fokk nga and ni moy la li wala la ben baye bay qawsaini dafa amone ben kilifa go xamne la naka kilifa yi léegi lañu nekk xale waaye du ci at bàyyi ji wàcc sées bi jox kilifa gi mu toog doom ji ñëw ci néeg bayam na ko waaw pourquoi alors bàyyam na ko doom dama rek ba lu xew ji am benn gan moo gan gi ñu yenn suuf ba ngoon jot seen wax yépp wiwi ngi wax mu naan wii wii wii rek wii wii wii bàyyi ñu waxal mu jot wax rek c'est-à-dire yow ñi nga fonk ba fonk leen mënoo wax non moo tax ma fonk xale bële ci maqaamam boo wàcc si jox mu toog doom ji dooroo xam ne mu ne defee loolu nga ànd ak nit te nattuwoo ko ba xam may kan fa tara da nga gis akhiran mujj gi fin gi ak sa maaqat tax si bu lu li nga jortoon soo ànd ak nit loolu laata ngay ànd ak moom da nga koy nattu da nga koy bu baax su boobaa da nga gis axiran fin bi lu uuteeg la nga ñor toxoon ci moom mu ne xat dëgg-dëgg kaana nekkoon na man oustaz ahmed ba zanni sama njortu indal faali ci koo ga ñuy wax faali nga xam ne turam dañ koo nëbbu ci wëy wi su ma njortu nekkoon na ci koo ga ñuy wax faali tur woowa xam nga ko de waaye mu xasana nekkoon na lu rafet njortoo naa ci moom lu rafet njortoo naa ci moom ne ku baax la njortoo naa ci moom du fa ci coloré njortoo naa ci moom ne loo ko wax mu def ko njortoo naa ci moom ne waxtu woo demee ba ëllëg li may fay mooy kóllëre ay fayante man waaye daal su ma njortu dëgg-dëgg nax xam ne fa ba daa mu jéne minal urquub ci firi kóllëre waaye waxdan lépp lu ma dëxal rek ak si mu fen sa lu ma sa wax rek fen na ca te dëgg-dëgg ku xam lii dana xam ne jamono tey bii wax ju am place la ci ci jamono tey bii yaay ànd ak nit mu sonn ci yow lool ji la taraanga ji la coloré nga mujj loo ko waxati ay fen la oustaz ne ne li gën a métti ci wax ji mooy allamtuhu man oustaz maa ko jàngal jàngal rek doy na sëkk de ndax moom wax na ne nahnu abidun li man bil harfi qad allamana fa kayfa bi cheikh man billahi qad arafana ñun ay jaam lañ ci koo xam ne benn xaraf la ñu xamal nag lañ man a la lañ war a mel ci koo xam ne yàlla la ñu xamal ndigam ku la xamal benn xaraf rek moo ci sëriñ waaw ku lay xamal yàlla nag moom loo a def oustaz mu ne allamtuhu maa xam rabaytuhu maa maako yar ba mën a jaxasoog nit ñi yar bokkut ak jàngal yar beneen affaire la waaye maako ko yar de raqaytuhu maa ko yéegee ci pay yàlla bi ba mu mën a méngoog pay bi ba pay bi gërëm ko ñetti yëpp maa ko defal ñu ne ko waa oustaz lan la la mu ne fa jazaawu daalika kullihi payab loolu mu defal ko maa loo xam ne yuux dibu dafay merloo lu mu jëfati rek mooy lu may naqadi rek lu mu def rek mooy lu ma naqadi rek la bëgg تخم بن ويكر واخون نا اذا اذا افادك انسان بفاهده من العلوم فلازم شكره ابدا وقل فلانا جزاه الله صالحه قد افادنيها والق الكبر والحسد بولني جيرني جيرني دمر سك تماي خم خم نغا سخ رك دي واخنا يو يالا ديو دالن كو ينم كو فاي يو ينم كو فاي ري اك ndax lim la jox muy xam-xam moo gën a for lépp oustaz mu ne waaye kii li ma ko jox yëpp ànd ak loolu li may mer loolu rek lay def loolu la waykat boo xoon ne kam allamtuhu nasmal qawaafi falama qaala qaafiyatan hajaani ñaata yoon laa koy jàngal nan lañ war a wuyee ba mu demee ba mën a wuyi man la njëkk bind xasida saaga ma ci ndey loolu ñaaw na di beneen waykat mu ne maa ko xamal lu ñu sànnee ci fett yi ba mu demee ba mën a sànni fett mu jub man la njëkk diit fett sànni ko da ngay gis ku yar nit ba mu mën ponkal yow la njëkk def noonu te loolu jamono bu nekk mu ngi koy mu ngi wane xaq qadri miqdaar